الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ñu ngi del siwaat ci ndimbalu yàlla di daje ci suñu téere bi di risaala bu ibn abi zayd al-qayrawaani ñu jëloon ci ay bunt ba yëg si woon ci fanweereelu bunt bi ak ñaar baabun fi nikaahi wa talaaq moom it ñu jël ci ay bind yu bari ba war a yëg war a yëg ci la nga xamee ne nii war a yëg ci bu dee ñu yor mool bi ma yor ci traduction bi di page 73 fi muy waxee ni wala tuxtabu lmaratu fi iddatiha bu dee ñi yor Samru Daari bi ci page 472 bu ñu xoolee ci presque ñetteelu ligne bi fi muy jeex 472 ñetteelu ligne bi di jeexee presque wala tuxtabu almaratu fi iddatiha ala kulli xaal bu dee gis nañu ko day wax ci bunt boobu mu ne kon wala tuxtabu almaratu fi iddatiha jigéen day kenn du ko labat labat mooy proposé jigéen ngir takk ko ci sëy kenn du ko def jigéen fekk mi ngi ci iddaam wala basa bi tahrid dara nekkul ca la nga xamee ni nii moom mooy ak gaaram bil qawlil maaruf ci wax joo xam ni wax ju ñu xam la mbokk kon bind bi ñuy jàngal mooy jigéen su dee nii jëkkëram daa faatu balaa mën a duggaat ci sëy war naa toog ñeenti weer ak fukki fan su dee jëkkëram da koo fase balaa mën a duggaat ci sëy war naa toog ñetti règle wala mu toog ñetti weer bu dee du gis règle diggante boobu nag daganul benn góor muy dem di ko ci labat labatu dig ko ni su idde bi jeexee ñu sëy ñu dëppoo ci loolu su dee ni moom daa bokk ci ñi jëkkëram fa islaam may na la nga gaaral ko gaaral googee ci wax la wala ci jëf jël alal di ko may léeg-léeg nga waxam ne ah xam naa yow de dëgg yàlla képp koo xam ne amoon na la soxna ah dana am lu yàlla gërëm wax ak moom wax yoo xam ni moom dana ci déggee ni yow mii kat da nga ko bëgg am maa toogoo moom ne ko dama laa bëgg a denc soxna bu idde bi jeexee ba takk la loolu islam da ko araamal lu mel noonu la ñuy wax ci ki jëkkëram fase ñetti fase lu mel noonu la ñuy wax ci ki summi konte ak jëkkëram nga xam ne jëkkër ji amul troisième ñii ñëpp islam bañul nga gaaral leen allahuma lu dul doo nekk di dogoog moom ci sëy comme ni borom bi di wax wala ta'zimu uqdata nikah hatta yabluga al-kitabu ajalahu mu am nag ak i fase yoo xam ne dafay xaraam ñu gaaral ko waxumaa nag di du dogu ci moom ci sëy mooy koo xam ne jëkkëram da koo fase ca amaguñu ñetti fase loolu la ñuy tuddee talaaqu raj'iyya fase jëkk soxnaam fase boobee fase nekk fase delloo dañuy considérer ne soxnaam la ba léegi ba waa ji dee woon moom day doon moom bu dee woon waa ji da koy doon waa ji am na droit jëlaat ko fekk kenn du def can kenn du ah nekkaat di géew ay géew loolee kon dañuy gis ne ku mel noonu moom day xaraam abadan góor di ko gaaral waxumaa nag ñi doog ak moom ci am sëy ñu jël beneen bit wa man nakaxa bikran fa lahu an yuqiima indaha sab'a ki nga xam ne daa takk soxna mu nekk jànq war naa toog ca moom juróom-ñaari fan duuna saa'iri nisaa'ihi lu bokkul ak la muy def te yeneen soxna ya mu féete jànq ba juróom-ñaari fan wa fi sayyidi salaasata ayyaam su dee da ngaa takk ba ma sa sëy nag moom na nga nekk ak moom ñetti fan avant ngay dem sa yeneen i soxna wala yajmau bayna al uxtayni fi milki al yamin fi l wadi kenn du boole ñaari sœur ca la nga xamee ni nii mooy moomeel ba nga leen moom nga boole leen di seet ñoom képp kenn ca ñoom fa inchaa bu ko neexee fa inchaa wata waqta al uxra su bëggee ànd sëy ak keneen ca ñaareelu sër ba fal yuharrim alayhi farjal uula na araamal ci moom fayu bu njëkk ga bi bayin ci jaay ko aw kitaabatin wala bindinte ak moom mu fay ko lu mu goree aw itqin wala mu far ko goreel wa shibhihi ak lu mel noonu mimma tahrumu bihi ca lam koy araamale kon ci mbokk àtte bi muy indi mooy waa ji amoon na benn soxna wala mu amoon ay soxna dem nag takk beneen soxna boo xam ne jànq la ku mel ni sunna danaan da ngay fanaanal moom juróom-ñaari guddi avant ngay def ci sa yeneen soxna yow da ngi noonu ndax jànq la ñu ngi doog a dugg dem si amma bu dee koo xam ne moom mas naa sëy yow nga takk ko bu mel noonu da nga nekk ak moom ñetti fan avant ngay dem ci sa yeneen soxna loolu it lu mu lay jàngal soo paree da ngay dem ci sa yeneen soxna gannaaw ba nga maandu ci seen diggante su la yàlla mayee ay soxna ñu bokk fu ñu nekk ku nekk da nga koo war a jox cëram ci yow maandu seen diggante yaa xam par benn bis lay doon par ñaar lay doon par ñeent lay doon la ngeen ci dëppoo loolu da nga ko war a respecté yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemele ay soxnaam du woon farata ci moom waaye teewul dafa yemele woon soxna yi ci ayam ba bi mu feebaree sallallahu alayhi wa sallam da daan wax fan lay ay suba ñu ne ko nit diw mu dem ca kooke soxna yi seen bopp ñoo mujj diisoo ni nañ ko jox ndigal muy yem ni Aïcha ba de sutu feebaram man ko yemele ni Aïcha waaye kon bu dul loolu soxna yi bokk benn place da nga leen war a yemale ci ay amma buñ bokkul benn place bu ñu dëkkee nag loolu moom ay convention yi ngeen dëppoo ca ba ngay farse yu képp kenn ci ñoom loolu yi la ñuy wéyal te doon loolu benn yoon la par weer benn yoon la par weekend benn yoon la par nangam ak nangam prix mu nu moom yi sax mu nekk loolu xalaatu li xaal ñu ngi dépendre ca li ngeen dëppoo waaye daal bu ñu nekkee benn place da nga leen war a yemale ci ay yàlla muy wax fii ci islam de bu ñu delloo ca alquran suñu borom dañuy wax ni bépp jaam koo xam ne yaa ko moom am nga droit di sëy ak moom naam waaye ñoom sunna ñëw di ñuy teqale ne déedéet su dee da ngaa am ñaari jàngi jigéen yoo xam ni ñoo bokk ndey wala bàyyi wala ñu bokk ndey bàyyi waxi na fi am nga droit di leen ànd ak ñoom ñaar ñëpp ci benn jamono man nga daal su dee yaa ngay ànd ak kenn ka ba nga xëy même ka ca des araamalal kenn ki ci yow ci nan benn mooy nga jaay ko walla boog nga bindanteeg moom pour moom liggéey fay la walla nga goreel ko walla lu demee noonu heure boo ko defee kenn ka mën ngaa dem ca des nekk ak moom te lu mel noonu it bokk la ñuy wax te ñaari sër yi or kii takk jigéen araam na ci moom mu koy booleeg sëram da doon dañoo bokk ndey wala bàyyi wala ndey bàyyi su ko defee it loolu ñu bëri dañuy jàpp ne maadaama dafa xaram rek maxaram la déedéet mbokk sa rakk soxna sa magu soxna du sa maxaram de dañ ñu sëy araam na ci yow comme jabaru jàmbur ngeen di sëy araam na ci moom waaye rek du sa maxaram amoo droit di ñoom teg moom ak wéy dem teg moom ak kaza wa kaza wa kaza du sa maxaram heure boo xamee ne parce que sërëm bu la neexoon tax ko heure bu sa sër heure bu sërëm dee mën nga ko jël loolee kon dañuy gis naka gor bi teree ci gor ña noonu la ko teree ci société yi am jàmm ñu ngi noonu suñ jëlee di leen bind mu ne waa man nu wa man wàcce a amatan wa man wàcce wàcce a amatan bi mil kii ku xis ba ànd ak jaam ci moom gam ka moom lam taxilla lahu ummaha wala ibnatuha lu dagganati muy mën a sëyal yaayam wala doomam bu jigéen wa taxruma ala abaihi wa abnaihi ka taxrimi nikah yow ñu xis ba sëyal benn jaam bu jigéen it say doom ak say baay aram na ñuy siyaat ak jaam boobee wa talaaqu bi yadi l abd duuna sëy jaam bu ñu xisee ba may soxna nag moom dong moo mën a fase soxnaam sang bi ko moom amul droit di fasel jaamu soxnaam wala talaaqa li sabi xale moom kenn du nangu ak fasel ay mag rek moo ko mën a fasel mi ngi noonu kon mbokk at yi mi ngi gën a nekk ci loo xam ne amul suñu société yi mooy jaam bi nga xam ne dafay soxnaam moo am droit fase ko ab sang am ci droit gannaaw bi kii ànd ak jaam bu jigéen ci sëy na nga xamee ni noonu la kor di taxawee ci place bu xaraam noonu la jaam ba di taxawee te mooy say doom ak say bàyyi yow it jaam boobee ay yaayam ak ay doomam lépp day doon loo xam ne nii boo aram la ci ñoom kon mbokk mi ngi noonu ñu jël beneen bind mooy wal mu mal laka ka nga xam ne dañ koo may baatam wal mu xayyara ak ka ñu tànnloo lahuma an yaqdiya ma daamata fi lmajlis am nañu droit ci atte seenu sëy fii ña nga ca toogu gaay toog fa ñu toog wala huwa an yunakiral mumallaka xaasatan ko góor ga it am na droit daa di sib te mooy weddi la nga xam ne ni mooy kam mayoon baatam fii ma fawqa al waahida su dee dafa atte lu ëpp ñetti facet lu ëpp benn facet walaysa laha fi taxyiiri du ko ñeel nag ca ka nga xam ne nii dañ ci ak tànnloo ba moom an taqdiya illa li salaasa ku mel noonu du mën a tànn lu ñetti fase summa la nuqrata lahu fiiha gannaaw ba du am benn temps dellu gannaaw boo xam ne nii dañ koy weddee la nga xam ne moom la def mbokk yi benn masal la boo xam ni dëkk bu mel ne Sénégal problème bu rëy indi na ko fi mooy ki ñu may baatam Sénégal tey jii boo laajoon waa jàkka jéeg ñu ngi di jàkka suñ nee jiw dañ ko may baatam lan la nit ñi di jàpp di dañ ko passé nii wala nit ñi jàpp da ko may jiw da may na ko baatam dafa passé waaye may baat ba bee Sénégal yi jàpp passé bu dee ne lañ jàng ci téere yi may baat firiwul passé may baat mooy may baat mooy da ngay woo soxna si ne ko hey sëy bi kat mi ngi nii may naa la sa baat ay tànnal lu la neex nga wax loo wax moom la ñuy wéyee loolu mooy may baat waaye firiwul fase gis ngeen su ko defee nag kookee nga xam ne nii dañ na ko may nañ la baat boo ko neexee ne fase naa sama bopp ñetti yoon wala fase naa sama bopp ñaari yoon wala fase naa sama bopp mi ngi noonu ñu ne nag bu boobaa ku jëkk jëkkër ji am na droit ne ko ba ma lay may fase yi benn fase laa la may woon moo tax mu ni ah bu ko neexee wala huwa an yunakiral mumallaka xaasatan fi ma fawqa waahida su waxee ñaari fase wala ñett mu ne ko hey ba ma lay may sa baat benn fase laa la may woon loolu kon bokk muy may baat may baat ci téere yi firiwul fas yi may baat mooy soxna si bu ko neexee fase boppam amaa nag ne suñ société moom comme ni ma la ko waxee boo jàkkaarloo jigéen nga ko may naa la sa baat société bi dañuy jàpp ne kon fase boppam mu des li ñuy tudde mu xayyara mooy koo xam ne da nga ne ko tànnal sama diggante ak nga dem su boobaa dañ naan comme da nga koo tànnaloo ñetti fase rek la mën a tànn ndax tant que tànn na benn teewul ba tey rajo yee lay doon bu neexee jëlaat ko ñaar bu neexee jëlaat ko amaa bu tànnee ñetti fasale su boobaa amatul droit jëlaat ñu ne kon comme yéen noonu ñetti fasale lay tànn loolu nag ñu ne kon bu dee ci benn place lañ toog yow góor nga ne may naa sa sa soxna may naa la sa baat su ko neexee ne fasa naa sama bopp su boobaa fasa bi tàbbi na nga ne ko tànnal sama diggante. ak nga dem nga féete man wala nga dem su boobaa bu nee na man tànn naa dem dañuy jàpp ne kon ñetti fase la fase boppam ndax ñetti fase rek moo koy teqale ak waaju mutlaqan wante ni nii kooku jurit ci bëri dañ koy jànge ci diir yi day xaw a am jafe-jafe dama ñu yàggul dara rek am na koy woo ne ma sëriñam jëkkëram dafa gaano di ñëwee di miraas man waa kër jëkkër dina ko doon doon ndax da ngaa ñaanoon baat ñu may la baat kon seen diggante dafa dox ba kaw loolu yëpp kon bokk dañuy gis ni ñoom dañ koy tënk ca lenn la ñuy jàng ci téere yi waaye ala kulli xaal nañu xam ne wàllu fase ak wàllu teg la ca islam di gën a seet muy almaaruf mooy société ba lan lañu dégg ni lii fase la ak lan lañ dégg ni lii du fase su defee kon nga xam ni Sénégal boo nee may naa la sabaat mu ne fase naa la waaye nag comme ni ma la ko waxee bu dee ca téere ya moom may naa la sabaat mooy delloo naa la kàddu sëy gi loo ci wax rek baat boo ci yëkkati rek noonu lu nekkee toog lu nekkee def ñu noonu te loolu yàlla waxoon na ko yonent yàlla bi mu wax ko ak i soxna ñu ngi noonu yaa ayyuhan nabi qul li azwaajikum in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila fa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu fa inna Allaha a'da lil-muhsinati minkunna ajran 'azima mi ngi noonu yàlla wax yonent bi ne ko laajal say soxna ku nekk ñoom dama nga laaj su dee daa bëgg mbiri àdduna nga jël lu leen neex ci àdduna jox leen ñu dem suñu tànnee nag ngërëmal yàlla ak ànd ak yow yàlla ngi leen di waajal fay yu mag ca aljanna ay Aïcha nee na ci man la jëkkee dama yàlla day dama sant loo xam ne wala nga ma cee topp dama waxtaan ci ak say wërgu Aïcha nee na bu ma ko waxee mun a ko leen na naa ci waxul samay wërgu tànn naa yàlla gërëm ci yow te mooy jamono jooju nga yonent bi métti na lool waaw yonent bi métti na lool jamono jooju daan toog ay dégg wér ci du ko tax da nga noonu waaye ñu ne tànn nañ yàlla gërëm ci yow kon loolu góor am na droit di ko def ak soxnaam doonte ne dañu xam ne lislaam rafetluwul mel noonu mbokk lislaam dafa rafetlu sëy nekk ci loxo ko nga xool ba gis ni say bii xool nga ko gauche droite fu nekk lii daal teqalikoo bi moo gën wëy sooy dogu nga teqali ko moom waaye bu mu jël sa kàddu sëy di ko bàyyi ci loxoy jigéen mbokk mi ngi noonu xam naa bala ñoo sori incha allah am na masala yu fi jot a jaar balaa nit ñi di fàtte su dee am na ci koo xam ne bëgg nañu indi ci ak leeral bala ñu jël beneen bind incha allah waaw su dee am na naa bismillah naa waaleykum salaam su dee ne jant bi daal sëy si moom rek am ci soxna te da ngay si moom rek moom moom kay benn soxna kay moom moom daal ka ngànt amul yéen a war a faral loolu moom tànk mi ngi am soxna ngànt amul moom soxna ñoo war a fanaan suñu borom mu ne askinu mën na min haysu sakantum mi ngi noonu yéen a war a fanaan lu dul ne ngànt dafa am mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam waaw waaleykum salaam
nit ki ñu xamee conseil ba la ca ayib ñu war koo déglu bu déglu ci jëkkër ñëw ni ko maa bëgg nga dellu sañu bañ a dellu waaye sa neexee mën na ko ni ku xam war a doon sax maa la ko bëgg a doon
nga ne dafa fase soxna si soxna si maanaam parce que parce que wax na la ko déglu waaw la ñuy ñëwaat léegi bu demee war ko déglu waaw parce que amul faj droit faj waaw waaw waaw ndax bu ko neexee mën na ko léegi léegi bu war na la dellu Non.
xale yi ràmm si diggante ba non non ndax jigéen boo ko fasee tant que idée bi jeexul yow yaay jëkkëram ba tey ñoo tax suñu borom ñu gën a azwaajuhun na yaay jëkkëram ba tey am nga droit delloo si ko mu neex ko ak mu naqari su dee ne nag moom delloo nga neexu ko da cay gis lor su boobaa incha allah bu dee temps bi may nañu ko bokk na suñu bi mu tey soxna si danañ la delloo bu moo ci yow su boobaa nag attekat bi danaan ko day xool ndax moom ci boppam sëy bii ñu ko nar a delloo ak lor da caa nekk am de su dee lor gu biir moo ci nekk attekat bi mooy tas sëy su dee gis ni benn lor bu jóge ci waajur su boobaa dañ naan ko ah kon nag dimanche passé am na ku fi doon laaj bu jëkk a jukki ba ca yaa ngi dégg comme nag léegi yow nanguwa dellu kon delloo ko canam canam moom sa bopp su ko defee soxna si delloo ko canam moom boppam charte ne waa ji bokkul ci nekkay lor incha allah dana bokk suñu bindu tey ñu ngi noonu waaw waaw waaleykum salaam waaw jigéen boo ko fasee fekk rajo yàlla sa soxna la ba léegi ñu ngi noonu soxna la ba léegi li islam waxoon mooy bu mu génn kër gi li islam waxoon mooy bu mu génn kër gi ñu ngi noonu boo ko génnee yow teg ndax sa soxna la ba léegi bis bu kenn ci ñoom day fekk sa fekkoon loolu ñu ngi noonu ndax islam it mi ngi bëgg sëy bi bañ a tas définitivement ñetti weer yooyu ku nekk xool ci sa morom mën na am rëccu am ba ngeen delluwaat loolu moo tax ba ci dee fekk rajo yi la day doon bu doon nag sëy boo xam ne fas na ko ñetti fase wala ak subi konte la wala ak rëbbante la wala gasaar yu dema noonu su boobaa moom doona doo xam seen diggante allahu subhanahu wa taala aalam waaw naam waaw kon ñu jël bind bu bees mu ne wa kullu xaalifin bépp adiwaat ala tarkil wati ci bàyyi ànd ak soxnaam ca kaw lal ba aksara min arbaati ashhur ci lu ëpp ñeenti weer fa huwa muwallin ku mel noonu day def ne iila te mooy wan na gannaaw ay dëdd na soxnaam wala yaqa'u alayhi talaaq fase nag du rob ci moom illa ba'da ajalil iila lu dul gannaaw digut wan gannaaw ga wa huwa arbaatu ashhurin lil xurri te muy ñeenti weer ci góor ñeel góor wa shahraani lil abd ak ñaari weer ñeel jàmm xatta yunkifahu sultaan lu dul ni da koy taxawal ka nga xam ne mooy attekat ba ñu ngi noonu mbokk kii day indi beneen atte mooy ci waat ni dootul ànd ak soxnaam loolu góor am na ci droit ne sa soxna fii ak ñetti weer dootuma ànd ak yow ci dal ñu ngi noonu ñaari weer dootuma ànd ak yow ci dal am na droit ni fii ak ñeenti weer dootuma ànd ak yow ci dal ñeenti weer dootuma ànd ak yow ci dal loolu am na ci droit waaye nag bu dee ñeenti weer yi yow moom jot na xalaat su boobaa ñaari mbir moo tax fa in faaw fa inna allaha gafuru rahim wa in azumu talaq fa inna allaha samiun alim képp ku waat ne dootul jege soxnaam na doon daa dugg weer wala dugg waat na rek ne dootul ko jege soxna si dem yóbbu layam yu leer ne ñeenti weer yi nii bokkuñu lan ak defe bi dara ko hii sa waat bu amee nga waatoon kaffaaru ko ca nga am daal sa soxna soo ko mënul boo tas seen diggante te loolu ñoo xam ne même bu dee góor booy tas say nekku fi araam na ci góor nga am ak sa soxna problème bu mu mën a doon dëddu ko woon ka gannaaw plus de quatre mois yoo xam ne si yoo xam ne plus de quatre mois yu si na ko bu ma dul quatre mois nag islam may na la ko bu dee yar ba jar na ko waaye bu ëppee quatre mois islam muy na loolu loolu mbokk dañuy gis nag ne boo doon déglu waxtaan yi àll bi moom parce que yàlla bu ciy déglu yépp gis ñoo xam ne dañ naan la diw ak diw ba gëjee bokk la ëpp na fukki at mais noonu am na histoire boo xam ne soriwul woon fële boor yi jàmbur yooyu benn ku góor soxna si ñëw ne wax ay kilifaam moom kat dafa waxoon gannaaw ah mu ne leen waaw laaj ko lan la def moo woon ko gannaaw ndaw si naka naka mu ne daal loolu bu ko bu ko bu ko waxul man du ma ko du ma ko mën a baax ndaw si naa wax dëgg de maa ko doon xañ sama bopp mu ne laaj ñu ko ñaata weer ndaw si ne waaw xam naa daal jege na juróom benn weer mu ne nag mi ngi noonu juróom benn weer xañ na ma ko boppam juróom benn at laa ko may su ko neexee mu toog su ko neexee mu dem donc loolu islam xamul loolu islam xamul loolu su ko defee ñu bàyyi xel ni góor la islam may nga jublu yar sa njaboot bañ cee jublu lor ko suñu borom diine ji dane laa darara wala dirar islam du nangu ngay lor wala du loraat wala bu dayyiquhun du dagan ci jigéen nga nekk moom ci sëy bi nga fasal am maa nag bu dee am na lu jar nga yar ko islam may na la nga won ko gannaaw moo tax borom bi da wax juróom gën na fit ma daa ñëw dëgg leen leen ci kaw la bi amma jigéen islam mayu ko mu won gannaaw jëkkëram abadan abadan xanaa lu dul ni dafa nekk ci ñàkk laaf wala nekk dafa nekk ñàkk wér waaye bu dee laaf na bu dee ne wér na ak lu mu mën a siqal sox borom këram islam mayu ko moon ko gannaaw am na droit nag su demee ba mu mënatu la mën daf ca attekat yi ñu jëboole leen wala ñu teqale leen waaye du dalal ci jigéen muy won gannaaw borom këram loolu wallahi xëy na war taw rawatina daal nit ñi intellectuel xam ngeen séparation le corps ngeen won nit ñi ñun ñu xamuñu ko lu bëri tubaab yi nag dafa jeex tubaab yi dafa jeex ñu ngi noonu da ngay gis boo xam ne nii di yàlla ay kilifa yu mag yàlla nattu leen ay soxna yu intellectuel yu kawe ci intellectuel mais nekk ñoom ci kër gi ay at ay at yoo xam ni du ñu sikk dara dara dara dara loolu mbokk musiba la loolu musiba la kon loolu la wax ci wàllu googee nee na nag bu dee na koro am nga droit ñeenti weer bu dee jaama ñaari weer lay doon buñ jëlee beneen bi dafa bees mu ne wa man tazahara min imraatihi koo xam ne dafa yemele gannaawu soxnaam ak gannaawu ko ko xaram mooy zihaar fala yatauha xatta yukaffira lu dem di ànd ak moom ci lal lu dul ne dafa def kaffaara bi àtt raqaba ci goreel jaam mumina boo xam ne dafa gëm salima bu mucc ci bépp ayib min al uyubi ca la nga xam ne mooy ayib yooyu dal nit laysa fiha shirkun wala sarfun min hurriya jaam boobee amul kenn koo xam ne nii daf caa moom dara wala mu am benn wàll ci góor bu nekk ci moom fa in lam yajid su amul jaam nag saama shahrayni mutataabi'ayni mu woor ñaar ñaari weer yu tegaloo fa in lam yastati su amul kattan bu mu tegalee ñaari weer at'ama sittiina miskiina su ko boobaa mu leer juróom benn fukki miskin mu day ni li kulli miskin miskin bu nekk mu jox ko ñaari mudd mu nekk à peu près un kilo wala yatquha du nekk di ko ànd ak moom ci lan fi laylin aw nahaar xatta tanqadi al kafaara lu daga nag muy ànd ak soxna soosey du guddi du ko cëg ba baa muy jeex kafaara ba mu def fa in faala zalik fal yatub ila allah azza wa jal heure bu defee loolu nu lu dellu ci yàlla fa in kaana watquha baada an faala baada al kafaara su dee nag ba muy ànd ak moom ci lan jiitaloon na def lenn ca kafaara bi itaamin aw sawmin ci ñam doon leel wala lu mu doon woor fal yabtadi aha na commencé waat kafaara boobee wala ba'sa bi itqil awar dara nekkul ci goreel ak pat ci zihaar te la nga xamante ni moom mooy yemale sa gannaaw soxna ak kala xaram wa wala di zina wala gayri jaaro wa yujzibu saxi saxiir dana doy it ba goreel jàmm boo xam ne xale la wa man salla wa saama ahabu ilayna doon ke ne ne nag ki nga xam ne daa majeur bay woor a ko julli moo ñu gënal ma nga ci jublu mazhab Maalik mbokk kon ci beneen atte la yëg atte bi mooy lan mooy zihaar zihaar mooy nga jàkkaarloog sa soxna ne ko bis ni ki tey yebale naa la ak sama yaay loolu la alquran indi alladina yuxaayiruna min nisaihim maa hunna ummahaatuhum ñooñu yemale seeni soxna ak seeni yaay wax ñu dëgg wax nañ wax ju bon ju ñaaw soxna ak yaay yi mun waaye boo delloo ci fuqahaa yi dañ ne illa bi nekk ci yaay moo nekk ci sër moo nekk ci doomu jigéen moo nekk ci bàjjan heure boo jàkkaarloog sa soxna na ko bis nekk tey yemal naa daal sama doomu jigéen bi fekkee tey yemal naa la sama sœur bu boobaa zihaar lay doon zihaar nag firiwul fase bu dee foofu rek nga yem islam day jàpp sa soxna la ba léegi waaye nag day xaraam ngeen bokk lal abadan ci wàllu sëy lu dul nga def ci ñett yi dem benn bi njëkk mooy nga goreel jaam boo xam ne jaam bu mucc ayib la ngi noonu jaam boo xam ne nii kenn mu ca dara su dee ne amoo jaam benn amoo loo jëggoo jënde jaam wala comme suñu jamono ji ci boo mën ay millions yi gisoo jaam buy kuy jaay bëgg a jënd ko su boobaa nag lislaam ne la kon utal ñaari weer yu tegaloo nga woor ñu ngi noonu noonu weer yu gis feeñ na nga woor ko wala nga woor soixante jours yu tegaloo soixante jours yi tegaloo loolee su dee ne nag dem nga ba am lot munoo woor islam ne kon utal juróom benn fukki miskin ku nekk nga jox ko ñaari mudd ñaari mudd ñeenti mudd mooy saaw mooy li ngeen di jënd zakatul fitr bii paase ñeenti mudd mooy saaw ixtilaafu na ci deux kilos deux kilos deux cent deux kilos ilaa ala kulli xaal ñaari mudd soriwul un kilo nga jël ko jox ko soixante miskin bi à peu près cent vingt kilos su ma noon def ko cent trente cent cinquante moo gën loolee ñu jox ko miskin yi allahuma lu dul mbokk yàlla nattoon na ma ci ñett ñoo xam ne ñu ma xam ñu wax lu wax ku ñaaw boobu seen soxna ñu wax bu xaraam boo xam ne même bu doon wax nga dëgg doogu nga doo ko def wax ko lu xaraam suñu borom mu ne innahum la yaquluuna munkaran min al-qawli wa zuura waaye ñoom ñett ñoo ñëpp da ngay gis ne kenn wóor ci ñaari yooyu jamono loolu mbokk da ngay gis musiba la kenn tey loolu ñu bàyyi ci xel bu baax yàlla kenn mënutul naxal naxal te ak moom te en général quatre vingt dix neuf pour cent koo xam ne ñàkk nga sago ba jàkkaarloo sa soxna na ko yebal naa la ak sama yaay fokk yàlla dana la nattu nga wëlbatikuwaat jëliwaat soxna si ñu ngi noonu nga wëlbatikuwaat jëliwaat soxna si ala kulli xaal loolu lu ñuy wax am maana ku ko wax si borom nee na bare leen ñaar soo amul wala ñaari weer soo mënul nga nga doog a leen da nga xam moom dina benn fukki des yëpp léegi wax ma ko wax ci kon joojee da ngay kafaara ba pare doog a mën a ànd ak moom waaw léegi nag bu doon da ngay def juróom benn fukki miskin te loolu itamit lu dul ci ngànt juróom benn fukki miskin nga war a lekk waroo jël rek benn miskin doon ko juróom benn fukki yëpp da ngaa war a wër wër ba am juróom benn fukki miskin ba baa nga cay lopp su doon tere nag da ngaa gis fanweeri miskin bu da nga jox ko juróom ceeb avant muy mat nga ànd ak soxna si ci lan su boobaa dañ naan ne da ngay recommencer waat à zéro da nga doon wóor ñaari weer yu tegaloo bi nga wooyee quarante jours seytaane man la nga dem ànd ak soxna si dañ naan da ngay reprendre waat à zéro tant que kafaara boobee matul nga ànd ak soxna si da ngay reprendre waat à zéro kon mooy li nga xam ni mooy la not ci mëgg Maalik ak ña gis ay gisinam loolee kon mbokk mooy aju ca loolee nga xam ne mooy zinaar bi nga xamee ni comme ni ñëpp ko waxee rek mooy jullit war naa tàggat ba pomp wax ci ñaaw doojee moom du ko wax mukk ak soxnaam doonte ne ni du firi ak fasi kon bind biñ ci mujj rek insha allah mooy li ñuy tuddee al-li'aan mooy rëbbanti al-li'aan bayna kulli kulli zawjayni fi nafyi hamlin la nga xam ne mooy rëbbante ci ñaari way dencante yi ci dàq ab ëmb yudu a qablahu istibraax boo xam ni dañoo woote ne avant ëmb bii di am day jëkkër ji nee na wóor na ko ne soxnaam si gisoon ni fi régal ba làpp aw ru'yatu zina wala boog moo gis soxna si di njaaloo kal mirwali fil muhara ca lu mel ne bant ba ñuy dugal ca pot ba ñuy pusgaloo bant bu ndaw bi muy di ci dugal di ca raay ci bët muy bokk hëla noonu la gisee soxnaam sa ak waaja ñu nekke noonu wax tilifa fi liaani fi lqas wuute nañ nag ci rëbbante ci la nga xam ne rek mooy tuuma gese wa ida tarafa fi liaan heure boo xam ne teqalikoo nañ ngir rëbbante lam yetanasaha abadan dootuñu mën a dencante ci abadan mbokk kon lii mooy rëbbante mooy benn waaye ngi nii ñëw na ci àttekat bi na ko sama soxna bi dama ko gis muy njaalo njaaloo boo xam ne bu ma leer la comme ni may gisee bant ñu koy dugal ci pot wala bokk daa man de sama soxna si daa ëmb suma gannaaw te man de ba may jeqale ko moom mi ngi nekk ci baax te man àndaatuma ak moom ñu noonu wala koo xamee ni nii nga wax ne boo nga bëgg a jee yàgg na yàggaay boo xam ne yow daal jàpp nga ne nii du sa ëmb ay moom moo ko ëmbal la ko ci keneen la ko jëlee su boobaa dañuy gis ne islam may na leen ñu woote ni dem ca àttekat ba rëbbanti su dee soxna sa daal insisté waa ji ni wax dara du ci def ñu rëbbanti am maa nag bu dee ne waa ji moom daa ñëw rek tuumaam soxna si moom kat dafa nekkoon di jaalu te waxul ne moo ko gis te waxul ne kat ëmb bii gannaaw mu laabee la su boobaa dañuy gis ne nañ borom xam-xam dañ ko am wuute am na ñoo xam ne dañ ne déedéet loolee amul rëbbante bu ci am waa ji day indi kuréel bu ñu moom i nga noonu am maa nag bu dee ne rëbbante ga nan lay demee nga xool téere bi mu ne wala bokk bokk na ci lu mu wax ne ay way dencante yi bi ñu woowee ñu rëbbante ci kanamu àttekat bi seen diggante dañ koy araamal ba faw tas la koo xam ni dootu ñu mën a ànd ci kaw suuf ba faw mi ngi noonu ni muy amee islam nettali na ko ci suuratu nuur alquran nettali na ko suuratu nuur wa yabda'u zawju fa yabda'u in arba'a shahadatin billah jëkkër jaay jëkkee rëbb boppam ñeenti rëbb bi daal di seede ci boppam ñeenti seede ci yàlla su ma yu xam mis bi laam gannaaw ba mu juróomeelu ko ci rëbb boppam su ma taltainu hiya arbaan ayda ku jigéen kay dana rëbb boppam ñeenti yoon doon teneen ne dafa waroon wax dana seede ñeenti yoon waxtu xam mis bil gadabi mu juróomeel ko ci ñaan ngarum yàlla wàcc ci moom kama zakara allahu subhanahu wa taala comme na ko yàlla waxe wa in nakarat hiya soxna si nag buñ ko waatloo mu dellu gannaaw rujimat in kaanat xurra muhassana su boobaa daañ koy dóor xeer ba mu dee su dee nekkoon na góor boo xamee ni nii dafa dugg ci néegu sëy bi wat in ci ànd bu mu ànd ak jëkkëram taqaddama min haada lu jiitu woon loolu na doon ak zawji aw zawjin xayri na doon jëkkër doo yëngu tuumaan mas na ànd ak moom ci lan wala jëkkër bu ko jiitu mu àndoon ak moom ci lan su boobaa daf koy rey wa illa juridat mi'ata jalda bu dul looloo nag moom dañ koy dóor en téeméeri yar bu dee ni moom kenn su ànd ak moom ci lan wa in nakala zawj su dee ku góor gi lañu waat loo mu dellu gannaaw julli da xaddal xas kooku dañ ko dóor ak teg loo tuumal te mooy samaaniina mooy juróom-ñetti fukki yar wala xekka bihil walad su boobaa doom joojee ñu delloo ko considéré ko muy bàyyam mi ngi noonu kon mbokk li ko am kolan détails yi mooy waa dañu tuumal soxnaam doom bii turuma wala maa ko gis muy njaaru day taxaw waat ñeenti yoon ci yow daa ñu ne billaahi maa ngi seede ni maa ko gis muy njaaru wala billaahi doom bi mu sama doom juróomeel ba mu ne li may wax bu dee ay san la yàlla rëbb yàlla wàcc ci man soxna si daal di jóg billaahi doom ji doomam la billaahi lim ne def maa gis may njaaru waxul dëgg su dee na moom li mu wax dëgg la yàlla na merum yàlla wàcc ci man loolee bu ko defee ñu teqale seen diggante ba foofu amma bu dee dañoo ñëw ci kan waat kat waa ji tuumaal soxnaam te du ko gis muy njaaru ah léegi soxna si ñu ne ko waatal mu ne du waat su boobaa dañuy xool ndax soxna si mosoon naa ànd ak borom këram ci lal wala ndax am na borom këram bu ko jiitu woon bu ànd ak moom ci ral su dee ne naam bor la dañ koy rey amma bu dee jaam mbokk jaam kenn du ko rey ci jaam mi ngi noonu su borom mu ne fa alayhinna nisfu ma al muhsanat min al azab bor jaam bu amee jëkkër fa la jaaroo suñu borom mu ne génn wàllu mbugal bu ñuy teg bor lañ koy def gaa yi tax dee mënees na ko xaaj dee gën ko xaaj kon génn wàllu mbugal mooy nañ waroon a dóor asgor muy dix milliards nañ ko dóor moom juróom fukki yar ñu ngi noonu am na bu dee ne dañoo ñëw fekk ne moom jëkkër ji tuumaan na waaye moom musul am kenn ku mu àndal ci sëy boo xam ne sëy bu dagal la njaaloo gee bu mu njaaloo te musul am sëy bu ko jiitu sëy bu dagal ba ñu ànd ak moom ci lal ñu tax ñu rey ko bala ñoo rey dóor wala jigéen ci njaaloo day fekk ne am na sëy bu ñuy fas ci sharia ñu ànd bokk lan ci sharia bu ñu ko jógee ne ku njaaloo ci dañ koy rey waaye jigéen bu njaaloo woon fukki yoon it dañ koy lu ma fukki yoon góor bu njaaloo fukki yoon it dañ koy lu ma fukki yoon ba nañu koo rey fokk ci sëy bu ñu consommé lay doon bu ñu demee ñu ci place bi nag ñu ne ko góor gi wàll mu nakk nakal dellu gannaaw su boobaa kon dañu koy duma moom juróom-ñeenti fukki yar ngir tuuma bi nga xam ne tuumaan na ko soxna kon bokk loolu incha allah mooy bind bi yàlla dogaloon tey question bi mbokk bi doon la hafidahullah moo ci war a topp waaye comme temps bi dañoo dab incha allah bu fi yàlla dajalee ci moom la ñuy jëkkee ñu ngi ñaan yàlla yàlla sàmmal ñu suñuy sëy ak suñu sëy njaboot te barkeelal ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
mooy daal ci góor gi nga xam ne kii dafa nekkul góor. Côte d'Ivoire war naa ko nekk pour daal bu kii la. am na ñoo xam ne moom daal di dund waaw.
parce que ndax loolu moo naan isaaka moom ci parce que bi ñu war a góor. dund ci kii yàlla war a góor.
ndax dañ mën a échappé ci ci góor yi góor yi. koo xam ne waaw. maanaam waroon waroon nañ ko góor ñoom ñëpp ci yàlla.
waaw muy man lu dul loolu man du ma du ma góor dafa ñu baax
voilà bu dee xaal bu dee bu mooy dee mooy benn mooy benn waaw ñaareel bi looy gardé ci koo xam ne kii dafa bëgg a def kàddu ala dafa bu dee am def est ce que xel naa la ko xel naa la ko
ala bu dee xaal bu dee wàllu tuumaal loolu aajul nekk góor ak nekk ñàkk a nekk góor aajul nekk jigéen wala góor te tuumaal doomu aadama su boobaa dañ naan ko indi ay preuve su indi indiwul preuve dañ koy dóor xëy na mënoon nañu poser question ci ne da koo tuumaal ci koo xam ne dañ ne du góor ala kulli xaal atte sharia moom liñ ci xam mooy loi yi yàlla wax comme loo xam ne ak dëgg la ci nit ñi ak lu dëgg ca yàlla masalan tey jii ñeenti góor buñ dogu woon ñëw ca àttekat bi ne ko ñoo fekki diw ak diw ñuy jaar ñu mën dogu ci waat ci islam danaan seen seede boobu lañ koy nangu donte ne dañuy fen comme amuñu preuve dañuy fen dañ daal lañ koy nangu amma bu dee ne ñetti goor ñoo ñëwoon fekk ay nit di jaaru ñu ñëw wax ko ci farmaatikat bi islam du nangu loolu même bu dee dañoo ko dëgg loolu it moo tax ba ne ci ñëw ne as gor yow kat dama laa gis ngay jaaroo islam du xool lu dul li nga wax ana say ana say seede imam mu am ñett yu ànd ak moom muy ñeent bu loolu amul moom fokk ñu duma fokk ñu duma loolee kon may attel jëf am na bu dee ñu tuddee test ADN ala kulli xaal islam xamul woon test ADN nit ñi nekk loo xam ne dafa dab jamono lillahi alhamdu yàlla mas na def benn conférence bu ci mos a séq ak docteur Silla bi ci université Dakar ci nan la ko l'islam gisee ak nan la ko médecine gisee yàlla dogaloon na am bis suñu ci defoon waaye li ñu bëgg a wax daal mooy test ADN mbir la boo xam ne dafa dab ndax l'islam dana ci sukkandiku bu dee ci wàllu nasab ak yooyu islam boo xam du sukkandiku ci loolu masalan lan mooy test ADN ci wàllu sukkandiku tey jii boo demoon ambassade Amérique nga ne da ngay jël say doom pour yóbbu leen Amérique dafa am test yu ñuy def pour xam ndax say doom lam bi wallaahi sama benn doom bi may nekk ci koo xam ni ay doomam la bëggoon yóbbu yóbbu Amérique bu ñu defee test ADN mu am ñaari doom ñoo ko ñii ñëw di dóoleel mais islam du nangu loolu wante rek xel dina ci ñaaw te day preuve yoo xam ne mën nañu wax loolu waaye nag ñuy jàpp mbokk man science lu mu sophistiqué sophistiqué mënul lu ñuy nangu à cent pour cent mën na day am rek ak lu ñu tuddee ak quatre vingt dix neuf pour nangam pour cent moo tax l'islam bu nangu test ADN ñu ne maadaama test bi wane na ne mooy doomam doomam la du doomam du doomam l'islam du nangu loolu xam na nag yeneen euh, test yoo xam ni dafay am ci wàllu feebar yi masalan tey yooyu dencante yi war a dugg seen feebar war a dugg ci sëy ndax ku nekk war naa def test boo xam feebar yi nekk ci yow nga wax ko sa morom yooyu ci sa xamul loolu amma ki nga xam ne dafa ragal nga xam ne nii ah, kii may na refaire kat ragal naa ci moom nangam su boobaa suñu borom la ko doo xëy dina ko jëndil seen matukaay la nga ragal moom nga fexe wóorlu ko ba am ci lu dara sa xam ne doo ca dugg su ko defee wóor bi ñëw ne soxna si man kat il faut ma xool ndax feebar nga am feebaru islam dina ko liggéey def waroo ko def soxna si ne góor gi ndax ma xool ndax feebar nga am feebaru islam dina ko wax waroo ko def bu dee ne am na lu cee ragal waaye daal bu dee cosaan waa moom islam bi ñu xool loolu ci zahir li ci des ñu def tawakkul allah wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah waaw li nga xam ni li nga wax ni góor gi nga xam ne dafa araam dëgg sunnaam am na subaa baati ñeenti weer ñeenti weer yi ma dee léegi day dellu danaa ko fa illaa mu mu ko sëñ mais bu fekkee ne comme ni nga ko waxee intellectuel nga xam ne góor ñi ko mujj pare ndaw si ak ñàkk lii diineem moo tax ndaw si dëgg ko ay at léegi boobaa ndax moom sëy ba bu wér la wala waala sëy ku li xaala wax naa la sànq ne la du dagal ci jigéen muy dëddu soxnaam muy dëddu borom këram bind ko di sax waxuma weer waxuma ay nangam nangam loolu moom du dagal suñu borom nag def ne fa imsaafan bil maaruf aw tasrihun bi ihsaan lépp koo xam ne da ngaa nekk sa soxna soxna si dëddu la dëddu la dëddu la nanguwul dellu gannaaw ku mel noonu da ngay fas xam nga li tax ma koy laaj mooy li nga ni moo tax ma ne ndaw si ñàkk ñàkk réer diineem ak topp jéem tax mu dëgg jëkkër am na ñoo xam ne si fas gal fas fas fas fas soxna waaw waaw bu leneen ci fekk waaw waaw waaw ndax ala kulli xaal ñaar dafa am mooy li nga xam ni suñu borom dana koo sant ak la nga xam ni sa lor da ca nekk wa qad fassala lakum ma xurrima alaykum illa ma turibtum ilayhi mooy soxna soosu nga xam ne dafa nanguwul la nga xamee ne nii mooy nangu la ko yàlla teg ci muy déggal la ko mel noonu suñu borom dane ne koy fase bu nekk nga noonu nañ ko fase bu nekk su dee nag ragal nga ne soo ko fasee comme li xew en Europe ak li xew suñu intellectuel yi tey dana nangu sa kër dana nangu sa salaire dana nangu su boobaa moom da fexe bàyyi tekki jabar bi am nga ful am déet donc su dee noonu dana nangu ne ah ah non non non non déedéet bu dee ne bu dee ne Occident kay doxul may wax xanaa kay Sénégal tax yow waaye Occident moom vraiment loolu moom fit na def Occident moom da ngay gis benn sama mbokk bi xasal ba ñu xam ne dëgg nee na benn waa ñoo si moom mais asan sama kër laa ñëw fekk sama di sama jabar bi fuuru ci beneen ko beneen ko ma ne ko war def ko ah xanaa sax bu may def yaa ngi dégg te mooy en Occident moom bokk dafa xew moom maa ngi lay tam ndax jigéen ñi ñooy bóor ci ñëpp am maa nag daal ci gàttal mooy gën a ni société yi mel ne suñu société xëy na Sénégal yi su dee nga ragal na yow boo ko passé mu yàqu sàpp na su boobaa demal takk keneen koo xam ni da nga fay dégg la sa xol am na seen ñoo xam ne dañuy subir loolu rek ndox na soxla si di leen métti dal di leen métti dal ba ñu loolu sax mën na leen far rey amma islam moom dara gisuwul noonu.
léegi si dara nga wax ci ADN bi tam.
waaw.
li tax na si daan naan koo xaar parce que mën naa am manipulation mën naa am erreur.
waaw exactement.
mën naa am manipulation mën naa am erreur.
exactement loolu lépp da cee am parce que li ñuy wax manipulation da cee am mooy nit ki mën nañoo tey dem ñu ne doom bii juruma ko soxna sa dem te ñay def test ya neexaleen alal yu bëri ñu génne test yi ne déedéet yaay bàyyi yaa ngi dégg heure nit mën na caa am wala heure dafay bari ci wàllu nit mel ki ne étude pasteur waaw boo fay def yenn test yi mel ne CFP externe la bu dee lu bari dañ daan waaye ak ay dëkk bi yëpp mën nañ laa jox ne la boo demee si kër nga kii ba boo ñëwee nga indi Waaw.
mais bu dee externe si place bi koy def bu exactement ñu nam ko def di ko dindi di indi exactement da ngay nekk bi sa bopp comme mu nga ko indi Exactement.
ñu nam ko bi parce que man manipulation manipulation manipulation lañuy def.
la ci bëri waaw da voilà nga am ci mën naa def cent ans pour dëgg la.
exactement exactement waaw waaw voilà voilà. nekk cent pour cent waaye dañuy wax dañu koy teg ci un million bu nekk.
exactement un million wala ñu wax.
Waaw.
loolu lañ ko waxee. léegi exactement nag ma doon ko laaj ba tey ci kii bi dafa sama benn bopp, dafa doon sama bopp.
waaw te maanaam ñeenti témoin bu ñu liggéey ñu ñu wóor ni kii moom si wóor boobu am nag li tax ma koy laaj mu dama ci si woon benn benn problème waaye dafa suñu tubaab yi gis nga kër bu nal topp si biir est-ce que loolu isaar moom mu ko seet ala kulli xaal bu ñu waxee njaalo lu ñu wax lu ñu gis sànq lu ñu lu ñu jàng sànq dañ ne moo ko gis ne bant buy dugg ci pot mbokk loolu mooy seen njaalo tey jii bu ubbi woon nekk fekk ku góor ki nekk ci kaw ku jigéen ci loolu doyul seen njaaloo de ubbi nga nekk bi fekk ñu nekk yaramu neen ku góor kaa ngi ci kaw loolu doyul njaaloo balaa doy njaaloo la yeneen ci bi alei salatu wasalaam waxoon waa ji ndax xam nga lu njaaloo mun waaw mooy na nga xam ne bant dana ko dugge ci pot wala na buum di dugge ci teen loolu mooy njaaloo su ko defee kon loolu nga wax bu doon ne daa am waa ji ne kii la koo gis maa gis li mu yor dugg ci ko jigéen bi ñu ubbi fekk fekkuñu ko dara kon dañu xam ne kat am nañ dañu xam ne kat parce que loolu la la la la kii Mu'tal ibnu Mu'tal Safwan ibnu Mu'tal ban ko tuumaalee ci suñu yaay Aïcha mais ba wax ji yegg ci moom ba mu déggee ne Xasan li ñu ci wax dafa gàtt jaasim dàq ko nit ñi teqale leen mu ne wallahi man musuma ànd ak jigéen ndekete moom yàlla dogal moom sax du góor radiyallahu anhu kon su ko defee yooyu moom ay mbir la yoo xam ne dañ koy tuddee jurisprudence mooy acte yi bu mu mën a doon am na ay exception yoo xam ne nii moom su boobaa kenn du ko dugal ci ci règle générale waaye dañ koy utal acte boppam mbokk kon ala kulli xaal comme xaw na guddee ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala barkeelal ñu liñ fi jotee dégg am nañu yàlla sàmmal suñuy sëy sàmmal ñu sëy yi ba guddul yëpp mooy ñu ci njaboot yu barkeel mooy ñu aali fi dunya wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain